asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam se ne moom lañ tuddee xam sa xam sa waay nag ki leen koy defal mooy soxna maam Fatou Kébé ngeen ci ànd ak man ma ci ànd ak yéen xam seen tamit bëgg ngeen a xam tey kan mooy seen waay tey nag seen waay mooy Serigne Khadim Gueye Serigne Khadim Gueye moom ci jànkati yi ko présenté ci njàng mi nga xam se ne ci la nekk waaye tamit ay jànkat yu bëri yoo xam seen tamit jot nañoo jaar ci moom ay waxtaan yoo xam seen tamit bëgg nañ koo sekk tey Serigne Khadim Gueye ñu fekk si ko fii nag ñu daal di koy bàyyi mu daal di nuyoog ba pare nuyoog askan wi nga xam se ñoo a bu baax ñoo ngi am mbégte yàkkaarloo ak yéen euh, di leen siyaare bu baax ci weeru tedd wi di saxru ramadan mubaarak di leen ci ndokkeel waaye di leen baalu ak yéen ñëpp di ñaanal Cheikh Ahmadul Muntaqa ñi fi nekkal sëñ Touba sun borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba yéene yi mu am ci liggéeyal sëñ Touba yàlla na ko defee ni mu ko bëggee te yàlla nañ ko ànd ak moom Ah, waaye sëñ Xaadim comme que jotaay tamit dañ ko ah, baaxoo di ko ibbi ak i xasida ñu daal bëgg nga ko yëkkatil ci njàngam xasida bi ñu soo ko ibbee jotaay pare soo ko àggale suñu waxtaan bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallim nafaani man lam yakun bi waladi ولا بوالد فتاب على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآله وصحبه والحمدي صلاة ذي الحرس الحسيم السمدي amin yaa rabbal alamin jërëjëf sëñ xaadim dégg ngeen ko noonu ci xasida yu am solo yi nga xam si ne moom la ubbee jotaay bi mu mel ne ni ma leen ko waxee woon sànq njàngam xasida mi kenn dootu ko ci présenté ci waaye sëñ xaadim tamit euh, kenn ku nekk dinañ la laat euh, kan mooy sëriñ xaadim ngay euh, ci bur buñ bëggee am waxtaan wi yaatu xaadim de moom koy faral di waxee rek ab taalibi la boo xam ni fii la dëkk ci Touba juddoo fii Touba yaroo fi jàngee njaareem ci daari sëriñ Mor Mbay Siise sama waajur wu góor wu ñuy wax si Moustapha Guèye moo ma jàngal ma ak samay mag ak samay rakk euh, fi ma bokkee itam mooy askanu mbaabu waa kër Cheikh Adama Guèye ak Cheikh ma baabu foofu laa bokk euh, foofu laa meññee sama waajur sama waajur wu góor sëñ Ahmadou Guèye sama waajur wu sama waajur wu góor nag nelaw na sama waajur wu jigéen moo fi des euh, ñaan yàlla bàyyi ko fi ci gàttal daal loolu mooy sama. ba tey sëñ Xaadim tamit bëgg nañoo xam tamit moom it eh, ci kan moo ko jot a tàggat ci njàng mi comme que jot naa tàggat moom ñu bari njàng mi de moom xanaa sama volonté bopp rek ndax man daanaka topp ma ci ginnaaw jàngkat benn. mu tàggat ma ci comme ni ma baaxoo nii nga xam ni ñu bari dañuy ñëw ànd ak man di tarbiyewu ci njàng mi man bi may doog a tàmbalee jàng ci daara ja laa ko tàmbalee woon ci kuréelu mawludi euh, ba ni ma ñibbisee Tuuba dëgg dëgg ma dugg ci njàng mi ma tàmbalee roy sëñ ndongo ci am bu Kawlax am na bànd bu mu defoon en 1984 ci màggalu Tuuba fii benn xasida raay yi ànd ma waaxibu njàng ma dugg ma lool ma tàmbali di ko roy roy naa ko lu mat ñetti walla ñeenti at ginnaaw bi laa tàmbali nag di roy Baay Ablaye Niang Ablaye Niang itam <clears throat> roy naa ko diir bu yàgg ba en 89 bi ma yàlla wane léegi sëñ Ablaye sekk ci laa ko tàmbali di roy sëñ Ablaye Seck nag ndakaaru la dëkk jàmm gën ma di ko roy euh, yenn saa it bu ma amee jot dem dakaar bu amee ay jàng ma dem ànd ak moom jàppale ko nekk ci ginnaawam bu dee jàng ci wet yi daanaka sax du indi ay awkat man ak samay awkat ñooy ànd dem jàppale ji ko fekk naa ko it ay dëkk yu bari yoo xam ni daf jàng ji ma dem di ànd ak moom ndax booba moom laay roy ki ngay roy nag dafa jaadu li li tey ma mën a ànd ak moom doon ab awkatam mooy ñàkk gee dëkk rek waaye buñ dëkkoon nii gaa ñi di def di ànd ak man fuñ jëm kon noonu laay def waaye boobu boobu maa ngi Touba mi ngi dakaar yenn saay rek lay am ay jàng fii ma dem ànd ak moom kon bu fekkee am na kenn ku ma topp ci ginnaawam di kaw sëñ Ablaye Seck la ndax Euh, moom laa mujjee roy te ba léegi it maa ngi koy roy. comme saa ni ma ko waxee sànq suñu Xaadim Gueye bari jànkat yu mag yoo xam se ne ñu ngi leen di tudd tey euh, ci moom la ñu jaar bëgg nañoo xam tamit ñooñu tamit naka nga doon leen tàggate tey ba ñu mën a tey fi ñu agsi. waaw li xam nga jàngkat moom <clears throat> li ci am solo mooy nga ngay def nga bëgg ko maanaam nga am ci ak bëgg boo ci amee ak bëgg nag du ñàkk ku la ci neex maanaam koo xam ni aw njànginam ak ak doxinam moo la neex. benn moom mu ñëw ni la dama bëgg ànd ak yow ci xasaay di wala yow nga gis ak njàmbaaram xam ni kii ku ko jàppale mu dem nga jël ko andi ko ci sa def naa ko jànkat yu bari am na ñu ñëw ñoo xam ne dañ leen fee indi am na ñoo xam ni dañoo jàpp seen loxo indi leen fi euh, loolu mooy solo si maanaam gis ku mat jàppale mu wóor na li kii ku ko jàppale mu dem nga woo ko ci sa di ko teete muy ànd ak yow nga di ko dimbale di ko wan ni ñuy def ba mu xam ne nii lañu war a def wala fu def daan wax ni may nit jën jàngal ko ni ñuy nappee da koo gën eh, yàlla nag dimbalee na ma eh, ñu bari ci ndaw ñi rawatina ñiy dëkkee Touba ñu ci bari man lañu àndal ba tey jii ñu doon ay jàngkat eh, maa ngi koy sante yàlla bu baax di ko sant sëñ Touba di ko bànneexoo it ci ñoom ndax tey jii ku leen tudd rek tudd ma loolu yàlla dogal na ko ba noppi mm, ma di ko bëggee itam bu baax ñoom ñëpp amu ci kenn koo xam ni euh, sawu njàngin wala na ngay jàngee donte dem nga ba yàngee ngi ak say daaji bopp di jàngee say daaji bopp na nga mel ma neex na ma lool ndax euh, ni ma yàlla def neex na ma kon ñoom na leen yàlla def ca nañ mel ci njàng mi neex na ma lool ndax ku xam seen histoire jàng kenn du leen tudd te ñu ma kon nag loola moom sante naa ko yàlla bu baax sant bu sëñ Tuubaa mi ma booleek ñoom ba liggéey bi egsi fii sëñ Xaadim moo mel ne tamit loolu boo ko dee xool ndam la loo xam si ne yóbbul ndax buñ ne yóbbul mooy nit ku nekk ak sa jikko ak nanga mel nga bëgg a xool sa jikko euh, wala comme ça nanga mel nga bëgg leen ko ànd ak ñoom yore leen ko ba tey tamit ñu daal di ku mel ni yombu doon ci euh, tey ji ni nga leen tàggate ndax gis nañ ne jànkat yu bëri tey ji koo ci dalal euh, dañ naan ne sëñ Xaadim ngay wala nga dégg ñu bëri ñoo xam seen tey ji yaa ngi leen tudd ñu ne sëñ Xaadim dama ne ci tàggat nga leen nga leen tàggat tey bañ agsi fii mu mel ne yombu doon xam nga jàngkat moom tàggat gi gën a gaaw mooy jànkat bi dul toog jànkat moom bu dul toog rek yow ci sa bopp yow miy jànkat bi dina baax ci yow waaye dina baax ci ñi ngay àndal ndax mu ngi mel ni compétition sport loo gën a bari ay compétition mu gën a baax ci yow waaye loo ko gëj a def mu mu feeñ ci li ngay def loolu moo waral euh, jàngkat bu ndaw day baax ci moom mu ànd ak jàngkat bu mag boo xam ne du toog heure bu ne mi ngi jàngi mi ngi dem ak ñëw loolu nag dafa dafa dafa baax ci dafa nekk doxin wu gaaw daal dafa nekk dox gu gaaw jëm ci li nga bëgg ci jàngkat bu dul toog waxtu wu ne yaa ngi jàng daa bokkewul ak ki nga xam ni tey bu jàngee tey balaa jàngaat mu def ab diir wala balaa jàngaat mu yàgg wala fa mu ay jàngam daal du bari waaw loolu nag day dimbali kiy wut am njàng di ànd ak koo xam ne waxtu wu ne day jàngi loolu moo waral ñoom ñi fi nekkoon ñi ci ëpp gën gaa yàgg ñii fukki at ak juróom lañu fi def ñii sax matu ko ñii euh, fukki at ak nangam am na fi ñu fi def ñaar fukki at waaye loolu yëpp euh, li ci am solo rek mooy benn ngay aw di jàngaale maanaam nekkaale ab jàngkat soo demee nag ci biir njàng mi man yenn say dama daan dem ba nga xam ni su ma amulee ay eh, su ma su jàng yi dajee ñiy jàngulu wax ni dañoo bëgg nga xool ci ñi ngay àndal ku la doy nga yebal ko mu ñëw jàngal si ñu def naa ko ba tey mu mel ni xaadim kebe mi yebal naa ko ci ay jàng miraaran sëñ bàcc Jóob noonu eh, Ousmane Diouf noonu eh, ñoom ñëpp ñi fi jaar te doon ay seexu naa Mbaj ñoom ñëpp ku ci nekk yebal naa la ci ay jàng ba tàyyi nga dem jàngi ko li koy waral mooy ñi ñi lay wut si ay jàng bu ñu fekkee bis booba nga joxe ko te ñu bëgg ci sa wet ñoo xam ne dañ naan yaa leen fi yebal dañ lay wax ni seetal ko la doy nga yebal ko fi yebale naa ci jàng yooyu ba tey ñoom ñu di ca dem ak a ñëw euh, loolu nag dina dina may jàngkat bi nga xam ni day doog dugg ci njàng mi mu am fit euh, gis boppam ci njàng mi xam ni am na léegi responsabilité wara a fanaane ay jàng am na responsabilité jëflanteeg mbooloo yooyu yëpp nag am njàng la ndax loo gën a jaxasoo nit ñi rek gën a jàng ci ñoom waaw loolu moo waral doxin wi fokk mu gaaw. tey ci quatre questions yu am solo yooyu nga xam si ne mi ngi koy répondre euh, bëgg nañoo xam tamit ñi nga xam si ne tamit euh, ñoo la ñoo jot a jaar ci yow euh, niñ la jege woon ba tey ñu ngi lay jege noonu ak gëdd ak respect bi nga xam si war nañ la ko jox ba tey mi ngi fi ba tey wala. waaw bu baax a baax ñoom ñëpp ku ci ne cër bi ma am ci yow maa ngi koy am bu baax. dafay mel ni sax euh, loolu léegi la gën a yokk ndax loo gën a màggee rek gën a am maturité rek gën a gis ni ndakati nii laa war a def wala nii laa waroon a def xëy na nit ki miineel dina tax wala jaxasoo ak miineel miineel laa ko mën a tudde euh, dina tax xëy na sax mm, fi nga ko war a teg wala ni nga ko war a def xëy na sax doo ko xamee noonu ak ngone it wala ay at dina tax waaye loo gën a jëm kanam di ànd ak mbooloo di gis ñoom niñ lay def ci ngay jàngee ni ndekete man nii laa war a def sama kilifa fii laa ko war a teg nii laa ko war a jàppee ndax ni ma ko jàppee noonu rek la ma mbooloo mii di ànd ak man noonu lañ may jàppee ba tax li wolof di wax ni nit ku nekk euh, lu mu doonul dongaam du doon sëriñam loola dafa feeñ sama diggante ak ñoom ñoom ñëpp ku ci nekk fu ma fekk da gis cër biñ may jox ak worma jiñ may jox ak fiñ ma teg ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ku ci ne am naa ci moom cër bu bu bu yaatu boo xam ni def na ma kilifaam def na ma magam def na ma léppam ñi ci ëpp yitam lañuy nekk ak la ñuy dugg dañ ci waxtaan ak man lu ma ci xalaat ma wax leen ci sama xalaat. ba tey sëñ xaari day jàng njàngum rajas day jàng tamit ci xas yi ñu bëgg nañoo xam tamit njàngum rajas mi ak njàngum yëkkati mi tamit ban moo ci gën a metti ñaar yëpp metti jàng moom saa boo ko joxee gëdd bi nga ko war a jox rek mu metti njàngum rajas njàngum rajas nag dafa nekk loo xam ni kenn nit moo koy def njàngum yëkkati muy njàngum aw mi yaag mbooloo mi yéen a koy bokk ngay yëkkati ñu ñuy aw diggante yooyu du bokk ak li nga xam ni yow rek yaa koy def waaye lu ci nekk metti na nag ndax moom énergie la boo xam ne ci yow lay génn tey boo ko joxee gëdd bi nga ko war a jox ak àq nga ko war a jox fokk mu metti moo tax moom yombul yombul lool. xam tamit eh, sëñ Xaadim boo dee def njàngum rajas ban yëg-yëg lay daal di am. moom kay danga naan boo yëkkati xasida yi rek. yëg-yëg moom njàngum rajas ak njàngum awoog yëpp ci yem moom saa bu ma nekkee ci xasida yi rek moom yëg-yëgub cofeel gi ma am ci xasida yi eh, yëg-yëgub nag sëriñ bi jege sëriñ bi ndax xasida yi moom képp ku ko yëkkati rek te mu dëggu ci yow mën ngaa waat ni sëñ bi soreetu la. loolu nag euh, bànneex la boo xam ni ku ku ko dundul rek ma ne su ko koo wax waaye yëg-yëg bu kawee kawee laa ci am boo xam ni lu ma sonn sonn ak lu lu ma lu sama yaram sonn sonn sama baat lu mu sonn sonn saa bu ma ci nekkee rek maa ngi yëg bànneex bu rëy rëy rëy boo xam ni euh, bu sori la ci man sëñ Xaadim Gueye àndal nii ci biir jataay bi ba tey ngeen ko dégg noonu ci muy tontoo euh, sëñ Xaadim tamit bokk ci jànkat yi nga xam si ne dañuy def tamit ay tournée internationale ndax mën nañoo xam tamit eh, kañ mujjee def tournée waaw yàggul loolu ci weer yi ci ginnaaw rek euh, xëy na tournée moom dafa am période ndax li ëpp fii Sénégal bu ñu xësee ba nekk ci nawet njàng mi fii ci Sénégal dootul bari dinay am nag waaye dootul bari su boobaa itam nag boo mënee génn génn daf lay daf lay dimbali day fekk yéen ñee soxla ko ndax booba day fekk ñu nekk ñoom ci u été nga xam ni di nga mën di gisee ñoom ndax dina fekk daanaka li ëpp ci ñi nekkoon senegal dellu nañ bu fekkee nit ña maanaa yaa ngi fay fekk ji nit ñi da nga fa fekk ca ñi ca ëpp ña nga fa loolu mooy waral ñaari période été mooy période nawet bi fii li ci ëpp moom ci lay génn ba màggal jege si wala tabaski ma doog a ñëwaat euh, jamono tabaski gi ak li ci topp maa ngi woon Brésil ak Argentine ak ci wet yooyu daal Amérique latine bi dafa amal ay tournée génnaat naa fi it yeneen i génn ci réew Afrique yi waaye bu ci ne moom duma fa yàgg daanaka semaine rek laa fay defaat ñëwaat. ndax soppe yi ni ñu yaatoo fii yaatoo nañ ko foofu. ah bu baax a baax ndax moom boo xoolee li ëpp léegi ci tukki ay gone lañ te ñi ci ëpp ña foofa ba tax na ñu nga leen di gisee fii rek noonu nga leen di gisee foofa waaw mooy itam ñuy ay jàmbaar lool am positif lool ci liggéeyal sëñ Touba ak nangu cee def seen seen alal. ak am cofeel ci xasida yi boo fa demee itam wax dëgg yàlla dañ lay wétlikoo bu baax a baax ndax loolu daf leen di manqué waaw stress ba ñuy dund foofu ak ak coono yi buñ la gisee dañuy am mbégte bu baax te loolu nag bu fekkoon ne rek euh, du njàngum xasida yi ak yooyu waaye dem gi rek ñu gis la seen xol sedd rek jaroon na dem uma laaj na ngay bëggalante ñoom ci xasaay bi waaw ba tey sëñ Xaadim bëgg nañoo xam tamit euh, sëñ Xaadim réew ma yan région moo ëpp waa région yi moom doo ko mën a tànn ndax xam nga ni ngay def rek mooy daanaka boo dee départ di nga du ñàkk dëkk yoo cité ngir war faa dem saa bu ñu déggee ni yaa nga fa itam ñu ci bari ci daayira yi dañ lay contacter ngir bëgg nga agsi fa kon doo mën a cité ni fii laa ëpp lu may dem wala fii daanaka foo wax ni doo fa dem da nga fa yegg ndax saa bu ñu déggee ni yaa nga fa rek wala ñu dégg ni yaa ngi ci wàccaayu tukki ñu ci bari danañ la contacter ne danañu bëgg nga xoolal ñu dat boo xam ne boo ñëwee ñëw fi ñu waajal ko balaa nga agsi mbooloo mi man koo waajal ñaari di nga dem ba àgg ñu doog laa contacter foofu ni dañu bëgg nga yegg si fii ngir ngir ngir agsi fi daal ndax bëgg nañ daal nga agsi fi bu ko defee bu fekkee xaj na ci sa calendrier wala xaj na ci sa temps nga yegg ci ñoom ngir sëñ Xaadim tamit eh, yow tamit eh, ci responsable bi nga doon gis nañ ne ay jànkat yu mag yoo xam se ne tey jii eh, bëri nañ ci jànkat yoo xam se ne tamit amuñu ay visa te loolu tamit dafa mel ne jàpp ne dugg ci ñoom en tant que responsable bi nga doon di seen kilifa nan nga daal di gisee loolu ci jànkat loolu nag xam nga moom <laughs> loodul may sa bopp moom te ay ci ay norme ngay jaar pour am ko loolu moom daf dul yomb pour wax ci ci ni nii nii lañ koy amee wala nàngam Euh, bi ma la mën a wax daal mooy citoyen nga am nga droit boo bëggee tukki ya ñuy laaj ñoom ci seeni euh, article ni nang ku am nangam ku am nangam ku am nangam boo ñëwee ñu may la sañ nga ko dem wuti dem déposé euh, jànkat yu mag yi sax dañuy déposé visa duñ leen may benn dajeeg ambassade ba xëy na loolu moo seen loi dinañ dàq ñu bari nga dem ñu boole la ca duñ la may def nañ ko ba tàyyi mbaa balaa ngay dem këyit wu ne di nga wuti te fekk na say passeport fees na dell ak visa loolu mooy mooy mooy mooy mooy doxinu Sénégal daal visa daal yomb fi te it mm, balaa nga doon sax kii mooy jànkat bu nekk bu sañoon buy tukki yóbbaale ay awkatam wala ñenn ci ñi muy àndal ndax ñoom la gën a déggool su demee foofu daayira yi rek ñoo koy aw mën naa am sax li muy jàng du dégganteeg ñoom ndax miinu ñu am njàngam tey ki nga xam ne moom toujours ni ma koy waxee day jàng nga bëgg di ko déglu bëgg di ko seetaan bëgg ko aw du mën a nekk waaw ndax gan ngay doon ci ñoom tey duñ bëgg dara raw la ci ci ci yow su ko defee nag ànd ak ña nga baaxoo ànd li nga miin leen ñu miin la miin ni ngay jànge ñu mën la aw boo sañoon booy dem yóbba donte ñaar la wala ñett nga yóbbaale leen ci dana la dimbali waaye tey jii saa boo jógoon doon di ko def dañ leen di dàq Euh, est-ce que du wisaa yi nga jàpp ne jànkat yi la gën a jafe wala. ah déedéet ak waykat yi yëpp. Um, wi yom yombeewul fenn de en général xam nga nag stratégie bi nga xam ni moom la moom la woykat yi di di doxale daf dul bokk ak ak ak ak jànkat yi parce que jànkat yi tam dese nañ organisation tuuti ci war a organiser wu na. am doxalin woo xam ne xëy na buñ ñu doxalee woon ci biir réew mi wala bitim réew euh, danañ danañ danañ xam seen statut ba danañ leen man di euh, xam ñoom ñëpp waaye xam nga loolu yëpp nit ki moom boo ko xamul rek doo xam noo koy jàppe waaye jànkat yi moom ci ñi nga xam ne ñi ngi dëgg ci seen liggéey taluñoo sax dem fenn di toog te ñoom it ku fa dem toog rek la bañ te jànkat yi moom taluñoo toog fenn ndax liggéey bu bari bi ñu yore waaye jafe-jafe bi daal lool lool rek la. sañ sëñ Xaadim tamit gis nañ tamit fi jamono toll kenn du waxta duñ ko ci boole muy Covid 19 bi di mbas mi bëgg nañoo xam tamit sëñ Xaadim naka nga ko dundee. waaw moom daal xanaa ni ko ñëpp dunde rek mu doon loo xam ni moom ñëw ñëw na fi suñ borom moo ko fi indi ndax fa mu amee ak fii mu yegg si soree na lool ko waxoon ni itam dana fi def nii ci Sénégal des ko mën a gëm ngir fa mu fa mu mu bàyyi ko. waaye coobare suñu borom la mu indi ko fi ñu sante ko yàlla ndax manoon nañoo bokk ci ñi koy ñi mu dal tey mu dal la it weesul kon buñ bokkee ci ñi koy nettali noo ngi sant yàlla bu baax ci loolu waaye bi mu amee euh, ni mu laalee secteur yëpp ni la ni la laale suñu secteur bi ndax ñu li ñuy def balaa ñu koy def mbooloo daa daje te depuis ba président waxee ni bépp mbooloo buy dajeeti nañ ko arrêté booba la lépp suñu lépp arrêté waaye ñi ngi sant nag sëñ Touba bu baax ndax sëñ bàyyiwu bàyyiwunu lii itam bi mu amee ba léegi ñu ngi def sensibilisation ci mbooleem seen site yu mel ni yéen di wax nit ñi ñu toog te moytu te def li waa kër docteur digle te xam ni liggéey bi eh, te xam ni mbas mi mbas la moo xam ni li ciy musli mooy li ko docteur digle mooy toog rek ak di raxasu ak laal seli yi ak takki masque ak li digle daal ci gàttal moom li digle bis bu set saa boo xoolee télé bi gis ko boo dégloo déggu loolu na ko ci sax jombul yàlla dina la ci musal ndax ñoom ñoo ñoo ñoo ci gën a ëpp xam-xam Euh, waaye itam ñuy ñaan ndax ay jullit lañu euh, te ay taalibe lañu ñuy ñaan yàlla mu jeexal ko ci réew mi jeexal ko ci àdduna bi yëpp euh, topp ci ginnaaw sunu kilifa gu baax gii di Seex Muhammadul Muntaqa xam ngeen ni wàcceelu nu ay kaamil ay yooni yoon jàngalu ay xasida ma koy faral di waxee bam ko diglee ba tey saa bu ma xëyee balaa maa wax kenn man jàng la fas ci nam ko nam ko diglee woon fas ci Euh, moom itam wax dëgg yàlla bàyyi na xel jàngkat yi lool ndax woowal na ma boppam yónnee ma fii ab dund ñaari yoon ni ma naa ko séddale jàngkat yi ba yónnee ba séddale naa kamtulaayul sama kàttan donte munta daj ñëpp ndax jàngkat yi niñ ñu toll ci Touba fa tabaarakallaahu waaye sama kamtulaayul kàttan séddale naa ko ba ñi ci ëpp boog am nañ donte munta daj ñëpp Euh, Cheikh Abdou Bali muy sëñ Cheikh Abdou Mbacke Gaynde Fatma moom it yónnee na ma fi ab dundu mm, ñu mottaliwaat ci ñeneen ñi nga xam ni euh, jotuñu woon a am noonu xëy na lépp loo xam ni mi ngi fii ñëw rek saa bu fi yegsee suñ kemtulaayil kàttan danañ seet ca ñam war a dem ak ñi ci amul ñu fexe ba ñu mën caa jot seen seen seen wàll kon nag ñoo ngi sant sëñ Touba ndax ndokk bi nga xamee ni nekk nañ ci liggéey bi balu mel nii am te njabootu sëñ Touba gi seetaan nañu kon ñoo ngi sant bu ndax sëñ Xaadim mu mel ni mbas mi tamit dafa gaaw ndax fekk na la ak programme. waaw man bii mii am moom fekk na ma yaakaar naa quarante et un quarante et un wala quarante deux waaw ndax man maa ngi bàyyi maa ngi bàyyi euh, le quinze mars. te yaakaar naa le quinze mars ba fii ma toog nii di wax ak yow. Euh, yaakaar naa suba la alxames war a dëppook ñaar fukki fani gi suba rek waroon na maa jàng ndax suba yaakaar naa mooy dajeeg laylatul xadri su ma juumul waaye mooy daje yi bisub maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñaar fukki fani gi nga xam ni suba ñaari bis daje na ci yoo xam ne bu ci ne waroon naa ci jàng euh, biir koor gi rek daanaa ci dem Gàmbi amal fa tournée bi juróomi fan daanaa fi jaar kawlax euh, biir koor gi ci la woon màgglu suñu affaire bu so daanaa ko ci jàng màggalu sànnoo mu dajeeg màggalu Sëñ Suwaybu ak yeneen i programme yu baree bari ci biir koor gi yoo xam ni daanaa ko jàng kon su fekkee ni fa mbas ma tàmbalee ba fii ma toog wax ak yow 41 wala 42 programme waroon naa ko jàng. mu nekk loo xam ne bari na ay activités yu bëri ñu ñaan suñ borom uh, daat ko fi gaaw jëlee rek waaye suñu xaadim comme tey jii fi ñuy daanee la tamit suñu bëgg nañoo laaj suñu xaadim gay ndax mas na dund ñi nga xam si ne dañuy daanu ci baas tey songu jànkat yi ndax loolu mas nga ko dund. ah man loolu yaakaar naa li ma ci dund benn jànkat dund ko ci ndax man moom ne waa na fu may jàngee te jëli yi bariwul. waaye nag xam nga léegi li ñu xewal ci baas yi baax na ci ndax léegi saa booy jàng dinañ indi groupe boo xam ne ñoo yor sécurité bi ñooy ñooy ñooy ñooy séq euh, estrade bi ngay jànge ba kuy daanu jëm si ci yow du yegg si amaanag bu njëkkoon yooyu yëpp daawul woon am organisation yëpp amul woon moom dund naa ci lu nekk jël dikkee na ma wet gu nekk ci façon bu ne loolu moo ko doon nettali du ma fi jóge xam nga saa boo toogee di jàng xam nga yow mbooloo lay wër te moom kii daanu jëm si ci yow bu yegg si fokk mu dal ci kaw kenn ci ñi ngay àndal mbooloo mi ngay àndal sax ñëpp ay jógandoo moom daanaka jàngee dafay xaw a yam ndax mbooloo mi ngay àndal ñëpp ay jógandoo maanaam téye ko wala ñu ñu ñu ñu ñu fexe ba du egsi ci yow du ñàkk wet gu mu jógee rek dina am ku ko séen waaw benn mu am dooley téye ko wala mu ñàkk dooley téye ko waaye lu mu ci mën a doon rek. mooy mbooloo koy téye moom ba ba du la mën a gaañ xam nga ki déedéet ki daanu jëm si ci yow moom awukat yee koy téye même bu leen doon gaañit awukat yi danañ ko téye waaw loolu moom nee naa la gum jugg si gum jëm si ci yow rek dina am ku ko séen ndax mbooloo mi xam nga dañ lay wër boo toogee di jàng dañ lay wër kon wet gum jógee rek dina am ku ko séen noonu nag ci lañuy ñoom bàyyi li ñuy def maanaam kale ko wala ñu téye ko ba du la gaañ wala du egsi ci yow mën naa am sax bu doon egsi ci yow du la du la gaañ ñam la war a gaañee ndax dina fekk am ko jot a téye mbooloo mi ngay jàngal itam muy daayira bi ngay jàngal buñ ko séenee xam ne ci jànkat bi la jëm si ñoom ñëpp dañuy jógandoo ngir ngir téye ko ba tax na daal moom di nga ciy dund ay yoo xam ne mbetteel lay doon parce que dalay jóge ginnaaw wala moom moom ma koy def sax du doon lu mu tey waaw ndax bu demee ba ànd ak sagoom nga xamal ko nii yaa def lii sax mën na koo indil leneen waaw waaye nag ku àndul ak sagoom moom àndul ak sagoom rek. ba tey sëñ Xaadim am solo yi ngay def tamit bëgg naa nga yëkkatil ñu ko ci jataay bi waaye tamit bëggoon na ma xam ba xam ndax sëñ Xaadim ngay eh, day bind wolofal wala. yëkkati bi nag moom <clears throat> woor nag damaa damaa woor <laughs> damaa woor fi ndegam ubbeel naa la xasaayit li ci des dañ ko def waxtaan ndax koor gi koor gi jàpp na ma loolu fi mu ne waaw waaye wolofal moom mm. sax moom du koy bind mm-hmm. waaye nag miin naa ko miineel goo xam ni. lu ci damm rek ma xam ko bu woyu peesewul danaa ko xam lu ci manqué rek ma xam ko lu ci damm rek xarut beeg bayaan beeg yooyu yëpp lu ci lu ci damm rek waaw ma ma danaa ko xam ndax dama yàgg jàng wala fal yàgg gi ma ko yàgg jàng moo tax daanaka saa boo woyee woy bu ci dara manqué rek man mi koy jàng dama yëg nii lii am lu ci manqué moo tax waaye nag nekkuma di bind ay taarif di woy ndax loolu daal bokkagul sama jublu tamit xaw na metti tamit jataay bi bëgg nañ koy tëjee buñ ko ko ibbee bëgg nañ koy tëjee ndax nekk na lu am solo tëjal ñu ko rek. jéggal ma ko ndax koor gi rek fi ne koor gi jàpp na ma lool <laughs> dama dama ragal koor moo tax <laughs> waaw maa ngi sant euh, bu baax seen site bii di 24 24 naka 24 ak actu maa ngi leen di sant bu baax ci ñëw gii ngeen fi ñëw ngir ñu waxtaanee liggéey bi ak tolluwaay bi. di leen jaajëfal di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla fi ngeen bëgg liggéey bi yegg fa na ko yàlla womatal boppam ba yeggale leen fa boppam ba mu bokk ci télévision yi gën a mag ci àdduna bi yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal yàlla sàmm leen te aar leen bu baax dellu di ñaanal Cheikh mun Mountakha sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko man nag su ma doon wax sama cant ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha dinañ fi yàgg lool ndax euh, def na ma doom def na ma taalibe boole na ma ci boppam te it dimbalil na ma boppam waaye nag man dama amul ko dul moom mu boole ma ci boppam di ma dimbali euh, di ma ñaanal def ma daal jox ma daal yitte joo xam ni man tollu ma noonu waaye jëmmi sëñ Tuubaa rekk a tax mu di ko def ku ne xam na ni sëñ bi ku bari yitte la ku mën a jàpp nitam la euh, maa ngi sant itam sëñ Mouhamed Mbacke mun maa wax ba bàyyi te santuma sëñ Mbacke soxnaloo li nga xam ni euh, lu ma am moo tax ma am ko nu ma mel mooma fu ma mas a dem moo ma yóbbu maa ngi koy sant bu baax di sant taawam bu baax bii sëñ Moustapha Mbacke Mouhamed mi nga xam ni tey jii ginnaaw bi ma gisatul sëñ bi moom laa féeteel maa ngi sant njabootu sëriñ bi ñëpp bàyyiwuma kenn ndax euh, wala fi dañuy wax ni tàgge bu ne am na jàppal diw waaye man jàpp naa ne nu ma nit jàppee rek jëmmi sañ sëñ Mouhamed Mbacke tax nga jàppee ma ko ndax ba may nekk xaleel la la ma la ma xàmmee xam ne ab taalibeem laa mu boole ma ci boppam dem naa ba mu ni ma doo sama taalibi sama doom nga di ma defal loo xam ne wóor na ma ni defalu ko njabootam di ma yóbbu te daaw ma gis muy yóbbu ay njabootam def ma noo xam ni gannaaw yàlla nu ma mel rek moo tax ma mel ni euh, kon maa koy fàttaliku di ko ñaanal yàlla dolli ko ngërëm ak leer bàyyi fi njabootam gi tàmbali ci sëñ Moustapha ba ki ci gën a doon daw yàlla sàmm leen ba yeggale seeni yéene di sant itam mbooleem sama kilifa yi nga xam ni ñoom laa nekkal ci kër gi muy sama waajur wu jigéen sama waajuru góor wi nga xam ne mook sama waajur góor ñoo bokk ndey ak baay jàpp nañ ma teete nañ ma dimbale nañ ma njaboot gi ma am itam muy soxna di rakk di ñoom ñëpp ku ci nekk maa la gënal sa bopp Euh, bu ma bu lépp lu ñu xam ni sama yitte ñoom ñëpp a ci xëy di ci gont kon nag maa ngi leen di sant di santaale mboolem ñi nga xam ñoom laa bokkal ëttu xasaayid di ndax ñoom ñëpp samay xarit lañu yemul rek ci ñi ànd ak man waaye man ku ma bokkal xasaayid yi rek def naa la doomi bàjjan nga def ma doomi nijaay ñuy kaf di ree di di di seq lépp lu baax kon nag maa ngi leen di sant ñoom ñëpp leen gërëm di ñaanal yàlla euh, ci barkeb xasaayid yi barkeb sëñ Touba. Euh, yàlla jeexal fi mbas mi génn ko ci réew mi te génn ko ci àdduna bi yëpp di dal di leen baalu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa aleykum salaam Serigne Khadim Gueye la woon ci jotaayu xam sa waay ngeen dégg ko ni mu àndee ñun jotaay bi dégg ci ngeen dégg tamit kàddu yi tamit ni mu ko daal di tontoo muy euh, question yoo xam si ne tamit ni mu ko répondre na solo ko ci sant bu baax euh, di ko sant bu baax ci jotaay bi nim ñu ko yombale ginnaaw bi nga xam ne si tamit diggante bi xat na ak koor gi tamit gis nañ tamit ni mu xawee tàng ak metti gi loolu lépp tamit ci ak oyofam di koy nangu ñu ko ciy sant bu baax di ko gërëm di sant ñi nga xam si ne tamit ñoo ñuy topp ci 24actu point com di sant tamit euh, suñ cameraman Modou Diouf di sant tamit ñi xam se ne ñoo ñu topp ci 24actu point com di leen jox dig daje ci beneen jotaayu xam sa waay ci keneen